sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuru muhammad mbokki Kun Fayakoun TV yi ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baal yéen yi nga xam ne ni yéenay topp canal bi yéen abonné si ñu leen di gërëm bu baax li nga xam ne ne moom lañ jàngale woon fan yi nga xam ne ne téere ba nga xam ne ni képp ku ko takk jigéen du la fekk si maanaam doo am wujju bépp jigéen boo xam ne ne am nga téere boobu jigéen du la fekk ci fa ngay sëy maanaam doo am wujju nga xam ne ne loolu mag ña ñoo ko daal liggéey léegi ñun ñu ñëw ba nga xam ne ne di ko liggéey nga xam ne ne jamono ji foo ko mën a déggee ñun ñoo koy liggéey nga xam ne téere boo xam ne képp ku ko takk doo am wujju dafa am nag ci côté góor ñi saafara boo xam ne ne képp ku bëgg a téye sa soxna maanaam sa soxna bëggu la nga jël loola raxase ko sa kanam sa soxna kooku moom dootu la bàyyi ba ilaa yow mi diini yow moom dong wala nga yaakaar ne day doxi maanaam nga yaakaar ne yëmu si yow day si demaat yeneen i góor boo ko xasee ba def ba raxase ko sa kanam ànd ak moom beneen góor du ko tiim góor gu ko tiim dafay tële waaw góor gu ko tiim rek dafay tële bokkut ak nag sàmm bi nga xam ne ne moom ngay sàmme sa doom nga jël loo xam ne am noo koy defee sa doom sa doom boobu feeg muy am jëkkër beneen góor bu ko tiim dafay tele beneen góor bu ko tiim day yoom du mën a àgg si kawam loolu nga xam ne na aar sa njaboot la ndax njaboot gi dañ leen a war a sàmm aar leen surtout si jamono jii ndax am na buñ xasee ba am yenn góor ñoo xam ne jàkkaaranoo ñoom góor ñu tàggoog seen sago wala góor ñoo xam ne ne lii dañ koo def bépp góor buñ bëgg a séqal dañuy séq ak moom góor jigéen gun bëgg a seqale ni seq ak moom moo tax lu euh, am solo loo xam ne dangay aar sa njaboot aar sa soxna ba nga xam ne ne beneen jigéen